شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه بسم الله الرحمن الرحيم ñu dellu siwaat ci seen émission njukkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci wayi wolof ku seen xejj boobee lu muy raasi seen ku géejam di baawaan nu muy jaje teen ku seen xejj boobee lu muy raasi seen ku géejam di baawaan nu muy jaje teen ku am naar wu dul xoox du saloy mbayaar nde aw naar bu xàkkee mbayaar dul ko seen ku say ndaj maar ñor di yendooru tal na mu yéegatee kay yësam ak di teen xanaa wàll sax këram daa tëggul bu leen dof bu leen dof xarit yeewu leen la ngay jéggi Makka ak Madina yamam mu ngi ñor fi sag ron bu leen sànku yéen sëriñ bee fi nekkal boroomam fi nun te moo wuutu yonent te ñuy menn meen te moo xalaat ngir ma yonent woon te moo dàq yéefar yee juyoog la miin di wéetal boroomam dem ak ay natoom ba xëy del si ak may yu gàcci xiin ku wàccan ci duniyaa di wër am kemam du fiiroog moroomam ci suuf ak feneen du ngeen gis moroomam ca màkk ak madina amul woon ca baawaan ca faas ak ca siin bi lépp xaj seenul fëppe yu marash kamaalam nga moo def rijaal yu jigéen bi lépp xaj jaxar baax la yàlla ko def mu doon bopp mboole mbindeef fii di geen dafay kuuy mu yàlla ak yoneen wudde ngëm li lee tax mu wuuteeg sëriñ sew doxiin la iblisu sampoon la jóg dal ko fil ñu léewtoo fa jeewal mu daan dàq leen li la tax ma lay kañ di bakk di way ku daan daye yoo way murit bàkku leen ku songoog tubaab bii te deewul dawul ba xëy na si Tuubaa xanaa yéem na leen ku songoog tubaab bii fagal waa Gabon te textil mu saalit xanaa waar na leen ba muy xëy jéem géej ñanoon dootu ñëw ba daan del si waatee moo ndax bettu leen te wallaahi mboolem ñetteeloon a ñëw ba muy woote ñoom ñépp seexal na leen bi lépp xëj ja doy baas ma doy loo ko man dumaa deeti seenee na kay raasi seen dumaa deeti seenee na kay raasi seen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam